Euh, nos chers internautes. N'oubliez surtout pas d'abonner euh, sur notre site euh, internet, notre site de production Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bu ngeen ko bësee rek di ngeen leen euh, guider na ngeen gis option bi bu baax a baax ngeen man di également. bokk ci ñuy recevoir à chaque fois sunu ay euh, sunu ay vidéo sunu ay li nga xam moom moo soxal sunu ay commentaire sunu ay euh, reportage yu leen jëriñ moo xam màggal moo xam cant yi moo xam débat yi tout ce qui qui comme l' actualité di ngeen ko jot en temps réel moo xam ci biir réew ci biti réew ndax ku ne xam ne diaspora bi également daf ñuy dañuy topp ñu suivre partout ngir nag xibaar yu wértu wóor yi nga xam ñu leen koy jëbal ci fii ci euh, Sénégal ci Sénégal la des ba tey ak beneen ponk d' actualité bokk na ci lu soxal mbirum convocation Barthélemy Diaz euh, foofu aussi dama ci xaw a être un peu euh, euh, donc objectif parce que tout simplement dama ci objectif autant pour au lieu de dire un peu sax parce que l'analyse est objective pour un bon journaliste maintenant lu jëm ci li nga xamante moom moo di mbirum Barthélemy Diaz man dama naan l'affaire les gens beaucoup parlent de d'une affaire politique oui tu parles du affaire judiciaire oui les deux cas sont réels et sont valables mais pourquoi l'affaire est judiciaire mooy que euh, si réew aussi bu organisé wu bu tëdd ak lu ci mën di am quelque que soit la nature de l'acte qui est commis dañuy def li nga xamante moom moo di yoon def ci àddu def ci liggéeyam yoon dafa am processus bu muy topp li ko jëlee ci enquête préliminaires yi ci procès verbaux yi ba atterrir au niveau du juge moo xam premier cinquième ba huitième cabinet ça dépend des cabinets qui en charge maintenant yoon dafay def li nga xam te moom moo di li ko li ko taxi yi luwaay tëral ci les actes qui sont commis moo xam viol la moo xam vol la moo xam ak lu mu mën di doon ci les infractions qui son punies par la loi daf ci def liggéeyam kon yoon def ci àddu ci liggéeyam maintenant ça dépend ci yoon boobu nag ki koy def est-ce que réellement sur cette chaise de juger est-ce que moom elle elle elle donc elle est indépendante ou bien euh, moom elle est dépendante lu ci mën di am moom ça ne regarde que lui parce que moom mooy xool ne moom mi kat ci aqulaaya taayam ta ta euh, ci aqulaaya taalaam lii kat da ko war a def de façon ni ko règlement ni ko la loi jàngale maintenant pourquoi l'affaire est politique mooy tax ñu wax ne l'affaire est politico-judiciaire mooy que l'affaire le point de départ il la été attaqué attaqué dans sa mairie au niveau de son institution institution la mairie te ku nekk xam na ne ce sont des euh, des personnes encagoulées armées jusqu'aux dents ñu ñëw attaqué ko est ce que ñooñu dañ ko bëggaloon lu baax bay ñëw di ko attaqué ci mairie donc kon guerre politique bataille politique moo aboutir lu ni mel ba la fa am am maintenant euh, mbir mi li am am na euh, gis nañ que ne politique bi moo moo ko sookee ñi ñuy duppe ay médecins moo tax foofu sax day am solo ñu wax que ne comme policiers ñoom ñoo ñu sonal parce que ñoom ñoo wut ay gros gaillard ñoo wut ay ponk ñu leen di garder def ñu violence bu am Sénégal homme politique ñoom ñoo koy créer seen biir. maintenant moo tax souvent nous ne devons pas être manipulés ci ci côté boobu parce que daf ñuy dañ ñuy jaxase li tax ma wax loolu mooy euh, boo xoolee président Macky Sall lui-même le chef de l'État Macky Sall les vidéos sont là leen ko a été invité à la 2STV mi ngi toog Pape nga Ndiaye mi euh, euh, nga toog kii nga xam te moom moo di euh, notre doyen confrère Ndiongo mi ngi toog bi ñu toogee mi ngi wax di wax la l'affaire Ndiaga Diouf et politique casse ko mais pendant ce temps que même Barthélémy Diaz était en prison il a été investi comme député au niveau de l'Assemblée nationale ci liste législative yi mais bi mu faloo mais lan moo ci xew diggante bi ñoom ñaar neexootuñ Macky Sall rocce ko loxoom moo tax ñun ban genre homme politique la ñu am ak lan mooy la parole donnée un président Macky Sall qui qui qui qui est à la télé directement ñëpp di ko seetaan mu kaas loolu à l'époque il était de l'opposition parce que la ñuy wolof naan booy ngoro moom tant que duggagoo ci sëy bi loo neex ngay ngay wax ngir mu sax ngoro neex gis nañ ko également mu dem ba ci kër Barthélemy Diaz que papam Jean-Paul Diaz toog fa également pour pour quand même s'incliner euh, pour quand même compatir à la douleur maintenant gis nañ la fa am mais quand il a été élu lan moo ci am dañoo yëngal tuuti mais erreur bi may wax moo tax ma ne Barth foofu erreur bi am mooy dafa waroon nangu ñu àtte ko mu jeex dégg nañ ci sax ci yooyu béykat non lié bi ñu bëggoon ñu def ko ci dossier bi le juge bi nga xam procureur bi nga xam ne moom la Bassirou Gueye remplacé dañ ko cee dañ ko cee sax naroon a indi problème parce que dafa bañ lool ba ci lañ ko ci dàqee sax parce que tout simplement mbir mi da ngay nekk ci donkaasi gi bëgg utiliser li ngay wax sa appareil judiciaire ci wàllum politique loolu mooy yàq te alors que liñ ci war a xoolee mooy suñu appareil judiciaire dañ ko war a bàyyi mu liggéey li ñuy wax la séparation du pouvoir le législatif joue son rôle de de de contrôle des lois qui sont votées le l' appareil judiciaire traduit en en acte les lois qui sont votées le pouvoir législatif exécute mais tey jii bu ñu demee ba tey le pouvoir exécutif moom mooy nekk ci kaw moom mooy am la mainmise dans la l' appareil législatif la mainmise dans l' appareil judiciaire nit ñi dañu am problème def la distinguo entre ban pouvoir la ñu am ci suñu réew bu Sénégal donc ce que réclament souvent les magistrats l' indépendance de la justice la justice dafa war am indépendance am bootu ci kenn mais tant que ñu ngi bëgg yootu nguur def arme bi ci wàllum bataille judiciaire boobu dañu am problème moo tax tey jii fi may jeexalee mooy boo xoolee Barthélémy Dias mais convocation bi 10 novembre bi yàgg na mais tey jii boo xoolee boobu xamagul tax ndax est-ce que dina bokk yeewi wala dina ànd ak yeewi wala yeewu nañ ko sam mais stratégie politique bi politiciens yi di joué ci loolu xool leen niñ ko investir tête de liste pour Dakar la mairie de Dakar coïncide également à sa convocation qu'est-ce que les gens ko bëgg a xeex parce que mairie de nangam sangam nangam loolu aussi foo faut ñu di ko bàyyi xel te loolu du fi guddee Karim Wade def nañ ko fi mbër mi ngi woon boobu mi ngi problème mu ngi ci entre les mains de la justice candidat Khalifa Sall def nañ ko fi candidat mu nekk entre les entre les liens de la détention Barthélémy Dias defoon nañ ko fi député mu nekkoon kaso c'est-à-dire que tant que ñu ngi tàmmal yooyu aussi dafay nekk bataille politico judiciaire boo xam ne dañuy dañuy nuire suñu suñu justice su réew dañuy dem ba suñu bànqaasi réew yi dañ nerveux te réew mu bànqaasam nerveux nag musiba naaru laay kecc kecc koso koso kese kese lay jur kon nañu bàyyiwaat xel lu ni mel président Macky Sall du moom rek moo fi war a nekk président ba abadan bu waree jeexal day jeexal moom moomut réew mi du moom aussi moom war a tànn kan lay bëreel te et puis élection yi yoonam da caa nekkul yoonam da caa nekkul te foofu dinañ ci ñëw donc si wàllum justice bi li wax mooy Barthélémy Dias aussi nag xam ne lii coup et blessure lañ koy toppee du du meurtre te xam nañ ne L29 bi nga xamante ni moo nekkoon L31 32 bu code électoral bi may na ko sañ-sañ boobu fekkonte ni tey jii dafa nekkoon koo xamante ni dañ koo toppee meurtre loi bi dafa leer nañ bu bu dee emprisonnement ba cinq ans bi romb a cinq ans wala yooyu mun a toccee bokk hmm? te déjà Euh, gis nañ ne li ñu koy toppee kon du meurtre mais coup et blessure mortelle lañ koy toppee kon moom amul effet juridique bu mbir mi di am maanaam ci lii nga xamante moo xew nii même bu doon nañ koy tëj amul effet juridique bu ci man a am parce que coup et blessure mortelle lañ koy toppee kon loi loi L 29 euh, bu code dafa leeral nañ ñi lépp. kon nañu dal tey bañuy manipuler opinion bi sénégalais yi malheureusement au Sénégal la foule ne pense pas benn nit ay fëqe sa wax mbir mi politique la ñëpp topp ko.